aj jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jërëjëf auditeurs yi nga xam ne ñooy déglu RFM yëpp maa ngi leen di ziar euh, di leen euh, baalu àq di baal ñëpp àq jërë ngeen jëf kontaanaat encore une fois di ñëw ci seen journal de faits divers xalaas ci rajo bu mag bi RFM 94 point 0 Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi la koy delloo bu wér Ababacar maa ngi nuyu waa Sénégal. Mhm. di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak wér. Mhm. waaw am na solo. Hmm. mel sama waa jëng ci ligne bi de. salaamaaleykum <laughs> eh, Aliou Ba eh, lijjantil ma problème bi foofu après ñu xool Ndiaye eh, fi ñu toll nii xalaas bi njëkk lan la wax wala balaa ma ñëw ci yow nañu dem ma nuyu sama waa ji bu baax. bu la ci neex rek. baan. Ah, maa ngi lay ziar. ça va maa ngi lay ziar bu baax. fan ngay woote ni yaa ngi hôpital wala yaa ngi yaa ngi hôtel wala yaa ngi sa kër. non maa ngi maa ngi Pire. yaa ngi Pire nii. waaw maa ngi lay ziar. maa ngi ziar ñëpp di la ziar Ndiaye di leen bëggee bu baax di ziar waa Sénégal gépp di ñaanal ñëpp jàmm rek. ya yàlla nañu yàlla def ñëpp am jàmm. ñëpp am jàmm rek. waaw ñu ñëpp am jàmm. ñu ngi ngi sant yàlla bu baax a baax. a baax man xam nga lu ma jaaxal. ah. oto bi ñu ma wan keroog ne ci nga duggoon. waaw. tey jii nga toog di wax ak man nii. waaw. ban war ngaa sant yàlla de. moo tax may sant tey ñaanal ñëpp am jàmm rek. Hmm. waaw yàlla bu baax a baax sunu waajur yi di mm. sant kilifa yi ci réew mi yëpp mm-hmm. ak ñëpp nga xam ne bëgg nañ jàmm rek ñi ngi leen ñaanal jàmm ñi ko bëggul sax ñi ngi leen ñaanal jàmm njaay mm, sant ma ne ko sant yàlla day ñëpp la war waaye war nga cee góorgóorlu mais mooy njaay ku war a dem rek ku sa app jot rek waaw waaw bi laa dëkk ci moom koy nañ ñaan jàmm rek ña ñëpp am jàmm yàlla jàmm yàgg waaw mm, man daal so so wax njëkk ak ju mujj mooy na ñëpp am jàmm rek mais baan fi ñu toll nii oto boobu xanaa du euh, fi ñu toll nii moom oto baa ngi suñu ginnaaw de auto boobu rek filmé ni du mon ne wala ni fi la ne sax. gaa lonk lañ ko bo yobbu ko. yalla yalla yobbu sa ay. na yóbbu amin amin amin yalla yobbu sa ay te ma yaat la benen auto bu bu gën boba mhm. amin amin amin amin ju bari indi ah, jamu ju bari. waaw ni ñepp am jamu rek. te lu xalas bi wax yow ci euh, ndjay ki day neena mom ci bagasam la mom mi sax ko ndoy ban mu ne ki dafa am ku ko hébergé <laughs> dégg nga ne dégg naa Ndiaye mu ne mu ne yow ndeke taloon nga di di lijjanti xalaat. man kay damay ragal bisu penc yàlla àtt nga naan ko may ma jël ko rek. extrait bu ndaw. <laughs> professionnel la dafa bëgg liggéey. yàlla may ma tuuti rek ma jël ko extrait bu ndaw soog a ñëw ñu yeggale. dina ana passe partout. fexeel ba buñ dajee yomal xiyam bu ma tàllal loxo. <laughs> xaw ma la xamoo ma. waaw abaa nañu bi de moom day fekk yàlla di àttam abaa waaw dañoo war a yokk temps bi temps bi dafa ndaw nañu ko yokk. waaw waaye baal baal nañu. wala ma naan yàlla sa jaam yi bëggante wuñu. <laughs> waaw. <laughs> yooyu yëpp nañ ko lijjanti bi nañ ko lijjanti bi àdduna bala ñuy bala ñuy dem yomal xiyam yàlla na yéex. mooy dëgg de lu leer yàlla waaw ñun ñëpp am jàmm rek. kii mu ne dafa hébergé woon. Brésil coow la fa am. waaw dégg ngeen ko ci ci weekend bi weekend bi gudd. Mhm. mais Brésil dafa am benn waajoo xam ni dafa rey benn xaritam benn ku waaju naan Bilaal mhm. ju fa rey ku naan Assane Diouf euh. ci waxi nit ñi nee nañ ko doon da ko fii rek jabaram ci waxi nit ñi wóoruñu maanaam Bilaal moo rey Assane Diouf waaw coow li nag bari na ci lool lool Bilaal nee na Assane Diouf ak jabaram wuul leen woon wóoluwu leen woon ok gis nga nam ko rayee woo ko téléphone jox ko rendez-vous fenn ray ko dugal ko ci kees sànni ko ci fu ñuy tuure mbalit léegi nag su yu mel nii amee coow li day bari mhm. Mhm. jabaru ki nga xam ne mooy assassin bi moom moo mën a waxte jabaru assassin bi dafa nekk sous le choc instant bi fexe nañu ba lijjanti kër ga mu ne ka ko héberger jamono ji moom mooy témoigner noonu hmm? waaw ki nga ci man la nekkoon mais fee taxoon mu nekk ci man mooy benn xale bu góor bu ñuy wax Youssou xaritu Bilal la di jëkkëru kura ndax bilaal ba kura bëggee liggéey su la gis yusu ñëw gis ma wax ak man ma accepté kura commencé liggéey ci man ñuy liggéey di liggéey di liggéey presque yàgg na je crois que ba mu commencé liggéey ci man 2015 la xaw ma 2016 léegi ñu nekk du nekk di nekk benn instant bu yàgg ba xam ne benn moment été jot na fii Brésil ci la kura quitté ba kura quitté dem Espírito Santos muy ginaaw Rio de te kura ba muy quitté fii São en 2016 ay coow moo taxoon mu quitté ko fi parce que benn ñàkk bu ñuy wax etekaam bu ñu dendal place moo ko fi mu sa wax Félix nataal comme bu décembre jotee ñun ëllëg ko ñu ne la bon année dañ lay wax Félix nataal léegi ba ko ñàkk boo waxee Félix nataal jëkkër ji indi fi problème yu dul jeex en 2016 mu yéegi jabaram ca la quitté jabaram mu ne moom rus na ñëwati fii di liggéey jàppante fi jàppante bu metti en mu jël jabar ji ànd ak moom dem Esprit de Santos ba mu demee Esprit de Santos ñu nekk fa muy ginnaaw Rio de Janeiro nekk fa nekk fa lu yàgg ba yàlla may leen fa tuut tànk ñu ñëwaat jamono yi ba ñëwee jamono yi ci ay deux mois lay toll ñu nekk fi nekk fi kenn xamul nag lu mu def Esprit de Santos boobu ba delluwu fa ak lu ko fa jëlee ñun xamuñu ko moom moo ko xam mais dañuy for ci wéeru bay naan dafa def foofu ay dégâts ay menaces comme ni mu def fii moo ko indiwaat fii mu ñëw basé wax São Paulo mais gëjoon na Sampolo presque 2016 je crois ba Koura bàyyee noonu rek ba mu fi ne problème yooyu ci la ko jël quitté ko déplacé ko jëmbu ko beneen dëkk boo xam ne amul ay sénégalais comme Sampolo mu nekk base sénégalais marché bi fi la nekk mu daal di ñëwaat jamono yi comme ni ma la ko waxee nekk fi mais xamuñu lan la fa def comme la ma la ko jógee jëlee fii mën na ko faa def foom tam xam naa mu dellusiwaat Sampolo ñu basé fi Assane mii tey nekk xaritam moo ko utal néeg ba mu nekk séq ak ñoom jàmm ak salaam comme ni ni mu ko séqee ak sénégalais yépp mais jabar ji bu ma waxalee sama digganteeg yàlla ndax jabar ji la may am joxuma ko mbokk ay mbokkam joxuma ko dañuy wax ndax yàlla moo ñu boole ak moom kon tam ñun tam ñu wax suti ak wax dëgg jabar ji musu ko traité normal du yére du dàll du lekk bu doy du naan bu doy du dara ba ñu ñëwaat fii ba ñu ñëwaatee fii mu ngi topp di menacé ndax man maa yor restaurant ci marché bi ñu nekk léeg jabar ji comme nii na doon na liggéey ak ma sona te moom manga nga seeg fa ñu dëkk fële jabar ji xamu fa kenn léeg mu ñëw ñu ñëw doxantu ñëw ba foofu te doxantu bi ni muy demee da koy tëj buñ te fanaanee bu ko tëjee ba su ba cinq ci ngoon wala ba six heures ci ngoon la koy libéré mu ñëw sama place bu lekk gi pare ñu del ci liñ ciy jël mu indi jëlaat kon ne ko six heures ngay génn mais neuf heures ngay dugaat sa néeg bi dëkk ak moom lool nekk ak moom loolu ñu toog sama place muy menacé ay nit ba corté grisé une semaine am na comme fi njëkk a menacé ku nekkul saam ba jël paaka génne ko ba ñun ñëpp ñu daw atte mu oodoo saag jël paaka def ci piliweer lëmas ko oodoo saag ku mu seen nga dugg génn mu ne jabaram moo tax nga dugg ci restaurant bi mu mel ni koo xam ne anut ak sagom ndax man demoon naa wax jabaram ki dafa mel ni anut ak sagom ndax nga am na yoon xam boo koy jëfandikoo da ngay dem sa sago day dem après am benn moment tam am na lu ma tëb nekk na Esprit Santos fa nekkoon ginnaaw Rio de Janeiro tëjoon na fa jabar ji cinq mois yoo xam ne géesul biti lekk gi daal moom bu xëyee huit heures day dem bu dellu soit ci kër gi ay neuf heures huit heures ci guddi heure añ bi daal lay ñëw ubbi néeg bi dugal benn marmita bi ñuy wax arros faison dugal ko ci néeg ba comme doom jàng fa nekk doom ji la xamutoon nu mu koy def bu ko dugalee demaat boobu la moo ñëwaat 9 heures ci guddi ba 5 mois yi mat def na jabar ji torturé bu ne ndax jabar ji tey bu fekkoon am na lu ko gënal yaayam ma nga Sénégal moom mooy jël xaalis di ko yónnee jabar ji pour jabar ji am yenn besoin yu mu bëgg a jënd wala dara yaakaar naa loolu ku yor sa jabar yor bu normal yaayam di ko yónnee xaalis même géej ñu demee été ji jabar ji métier mooy létt du ko bàyyi mu létt da koy jox kaaka verre mu téye mu jël doom ji dem dénkaane ci ay tubaab bu jaba ji ànd moom di jaay lu jaba jaay mu jël ko bu jaba ji toogee di noppal sax mu ne ko war a toog nopp ci ak géej ak dox géej nu mu méttee jaba moom lu métti mu di ko dóor di ko torturé am na yenn photo yoo xam ne yor naa la ko dinaa la ko envoyé pour ngeen xam yéen ñi nga xam ne yéen nekk RFM ngeen xam ndax sidi ñu ngi bind ñu ngi bind te xamuñu lu ñuy bind ñu ngi naan dañ ko fekkee Assane Diouf ci kawam loolu yëpp amu fi ma yeggale nag wax ji ba moo jëw nag benn jamono ba fa defee menacé kooku ci jour ba menacé waa ji génne paaka jaba reer ñu ànd dem ñibbi ci la xëy ci guddi ay cinq heures du matin mu jël jabar ji dóor ko dóoroo dóoroo dóor ba jabar ji ñu naan dund na wala deen jàpp bopp bi di ko mbëkkal ci miir jabar ji daw nëbb sama néeg ay six heures du matin mais ban waaw kii di wax ni moom moo hébergé jabaru waaji mhm. waaw pas waaji ñu rey mais waaji reyaate mhm. waaw waaji reyaate ndax jabar ji da doon ñaan baat yooyu yëpp mais euh, jotul tas daal fi mu nii mi ngi ci kër ndaw soos doon wax. Hmm. ki ci topp. Hmm. mooy xaritu waa ji ñu rey. Hmm. déglu ko. ba mu dawee ñëw sama kër ànd ak ay yuuxu yu métti ne ko lan la mu ne ma diw de daf ma doon dóor ba di ma mbëkkal sama bopp bi ci miir bi moo tax ma daw ñëw ma ne ko comme dafa teel te ñun ñu ngi ay 6 heures du matin Brésil. problème bi moom dafa dem ba ëpp ñu loxo ñun ñuy nekk fii parce que fu mu toll nii ku nekk yaa ngi jël version bu la neex di ko commentaire wala di ko waxee bañ na ko ba YouTube sax bëggatuma fa dugg di seetaan wala Facebook tey jii ak wax ju ñaaw ju ñuy jël di ko teg si ki nga xamante ne tey génn na àdduna faat nañ ko génn na àdduna wax ju ñaaw ju jël di ko teg si kawam waaw métti nañ trop trop trop trop trop loolu lépp la moo ko waral mooy réseaux sociaux yi ak gaa ñi nga xamante xamul nu mu demee ku nekk jug di wax Assane Diouf jëwrin billaahi wallaahi taalaahi Brésil laa ko xamee mais moo gën a ragal si àdduna du tooñ maa ngi moom buñ jàppantee xuloo nii sax moom moo may jéggalu barki Serigne Saliou Mbacke parce que nit kooku du tooñ borom baax la Assane Diouf bu jote woon nag bërëd bii ray ko nii Bilal barki Serigne Saliou Mbacke man dana ma ko wax te dinaa xool seytaane bëri doole te affaire bi am na lu bari lu si luus est nga affaire bi am na lu bari lu si luus loo xamante ni tey waxuñ ko est-ce nga Assane moom bu jote woon ak Bilal lënd si guddi maa moom ñoo nekk ba trois heures du matin te buñ jote woon man dina ma ko expliquer parce que xam naa ni nit kooku dafa ragal ku mu amal problème danañ ko wax quoi pour ñu arranger ko xool nu mu demee mais yàlla rek moo xam mais man tey ñeme naa toog ne Assane Diouf tooñul bërëdë bi quoi barki Serigne Saliou Mbacke jotewun dara man ñeme naa wax loolu xëy na bërëdë bi mën naa dégg ay rumeur nag dal si kawam comme nu muy déggee rumeur si yeneen gars yi di leen menacer mais ku ma tegaloon kaamil ma rëkk ko si ah xam ne Assane Diouf toonu ko quoi rey na ku ragal barki Serigne Saliou. ñoom ñaar ay waay lan ñoom ñaar ay xarit lan ñoom ñaar sekk nañ liggéey ñoom ñaar. Bilal nekk na benn dëkk Assane dem fa ñoom ñaar ñu sekk ay teraanga liggéey ñoom ñaar sekk nañ lu ne. ay xarit lan tey ku ne dun ay xarit rek naa féeq nga ñoom ñaar ay xarit lan xarit ju ñu nekk moo waral Assane tey dem néegu biraal tey ba jëf ci am fa ñoom ñaar ay xarit lan man ba ma yéegee ni deena jeudi la te di laa dégg ni lan ko rey te ñun mercredi su guddi lañ ko demoon seeti ji ba jeudi ñu koy seet te soog bi amoon na ñun yëguñu ko waaw mais moo taxit gars yi nag ku siy wax rek na nga wax li nga xamante ni maîtriser nga ko parce que fu mu doon version bu nekk mu ngi jug ku nekk ngi wax ay nit ñoo xam dañ naan mook Assane ñoo bokk lal bu ñuy tëdd ay bilaal da ko daggateeg gars yi version bu ne la ñuy joxe loolu lépp dara amu la rey na ko mais yi wax bilaal da ko daggatee da def lii da ko def lii yooyu yëpp dara amul rey na ko néegam génnee na ko. loolu lépp seetaan nañu vidéo yi bañ demee morgue ba war nañu néew bi nga xamante ni ñaari jam-jam lañ ko si jam fa la yam mais ay daggat yu ñuy wax benn cër manqué wut si moom. et puis li ci gën a garaaw information yi ñu lay jox moo ni euh, li ci gëna graw moy information yi ñu lay jox. voilà mais dafa melni wax ji jeexagul de. wax ji jeexagul dégg nga ko mu ne euh, dara kiiw ko nu mu tëdd waa ji. ko ñu bari dañ ni dañ ko daggate dugal ci saako. Mhm. waa ji da koo mhm. dóor jam ko paaka dugal ko ci caisse bi ko dugalee ci caisse nak woo na benn taximaan sénégalais pour mu ñëw jappalé ko taximan mi ni ko dama yàpp. mais terewul romb na ci côté mais am na beneen sénégalais ba mu woo kooku puusle ko ko mais sénégalais boobu doon ko puusle kees gi xamul woon lu Assane doon sànni foofu bu lu lu Bilal doon sànni foofu. mais vidéo surveillance ñoo filmé bi muy sànni affaire bi ci mbalit mi buujumaan yi nekkoon foofu ca Brésil ñëwetu mbalit ma ñoo alerté police ñu ñëw mais vidéo yi génne na ko bi muy génne ci kër gi di yóbbu corps bi ci ak kees gi ci mbalit mi. léegi waa ji doon moom lu doon ñaawlu li mu doon li muy ñaaw lu mooy yenn information yi génn. Mhm. ñu naan dañ koo dañ koo daggateeg. Mhm. dañ koo def yi maanaam yu bari yoo xam ne moo daw ci weekend bi. Ah, xam nga waa ji euh, waa ji moom yabuñu. kan ci waa ji doon wax sànq. ah lu tax. mais ngan gu yàqu gunge defaru ko da koo jam da koo daggateeg am mooy rey na ko rek. mais nag mais nag rey na ko mais daggatewu ko. xam nga tamit ban. peu importe sooy nettali da ngay nettali li nga xam ne moo am te wér. waaw mais gis nga ku dee ci marché. waaw soxlawul ñu lay tàggee. kii ci néeg la dee nag. non waaw dama lay wax mais dañ koo rey. <laughs> ñun xoolal avant ñuy wax reyin wi. waaw nañ wax ci rey gi ba noppi. voilà léegi nag reykat bi ci boppam. waaw bi mu reyee waaj Assane ba pare. dafa génn am ku mu menacé ni ko foo nekk soo xamoon li ma def yow laay wër pour def lu ko nangam déglu ko. affaire moom bu ma ko déggee moom métti na trop ndax Bilal moom Facebook la ma woo quoi Facebook la ma envoyé message ne ma envoyé ma sa numéro ma envoyé ko sama numéro après mu commencé di wax ojo yooyu quoi te man wax dëgg yàlla bilaal moom man ak moom jàmm rek la ñu seq quoi jàmm la ñu seq amuñu benn xaar ma yàlla man ak moom. waaw aw ma benn xaar ma yàlla man ak moom. bi ma doom amul de man deew ma ba kenn di doonu sama jabar déggoo li ma la wax xanaa barki alxuraanul karim démb gisoo ma sampolo tey gisoo ma fi laajal la ma def foofu noonu te maa ngi ñëw. bul fawee sa bopp bi bul fawee sa xel mi li nga def lépp xam nga ko li nga def lépp xam nga ko say photo ngi si man booy yow da nga dégg xanaa déggoo li ma la wax barki alxuraanul karim dinaa la rey. billaahi wallaahi dinaa la rey. billaahi wallaahi bu ma agsee fi ma jëm nga xam ne lépp dëgg la xamoo li ma capable sax xamoo li ma capable kura du faat sàmm du du la ay millions yu bari la fay indi ko fi sama jabar kenn du ko fooyee billaahi wal kitaabi. li ma wax ma la wax kura du tala du kara du karla du fat samba man duma tala déggoo ma la wax de ku dama fay ay millions yu bari indi ko fi sama jabar ku koy xol yenn beuri wala nga koy jema fawé mak mag yow xaar buma ñew sam suma accès nga xam lepp deug la bu yabo nga fay say bor wala nga génn sampooloo barki salatul fatih bu la rayul raylul la billahi wallahi laaj ma kura lima capable bama accès ak jamm billahi wallahi bama accès ak jamm kura du karla kura du fat samba kura dama fay ay millions yu bari indi ko fi sama jabar kenn du ko fawé loolu nag na ngeen ko dugal sa bopp maa ngi ñëw te bu ma ñëwee li nga leb di nga ko fay barki Cheikh Abdoul Karim Mbacke yaa ma tax a génn bu ma accès naa la def ñëw billaahi wal kitaab yaa ma tax a génn Sampolo ñaari fan yëpp ci say tànk laa nekk déggoo li ma la wax de ci say tànk laa nekk fi nga dëkk ak fi ngay dugg lépp xam naa ko yow sam dalal ba ma accès rek Saam yow laay waxal xam nga ne yow laay waxal Saam yow laay waxal man Bilal maay wax ak yow man Bilal maay wax yow maa ngi dem maa ngi ñëw li ma la wax lu na def sa bopp bu baax li ma la wax na nga ko def sa bopp bu baax. non jarul yaakamti jarul woote bu ma accès dinaa la woon lan laa capable. xalaas. Hmm? waaw c'est saya assassin bi moo def loolu. moo doon wax waa ji naan ko ay maa ngi nii di ñëw. bi ki ki ki bi mu rayee kee ba pare. Mm-hmm. la woo keneen pour dem ray ko. bëgg ngaa dégg keneen ki waaw. xëy na def na mais def nañ ko de. Ah, loolu moom yàlla rek moo xam. loolu moom ñoo cest à li ko tax a aalu déggoo ci biir yi waxam nee na. waaw diw mi. waaw du diw du diw kii sama jabar la maa ko fi kenn du ko fowe. waaw moo tax man la def na. waaw waaye def nañ ko. mais est-ce que foogul ni dañ koo def. waaw waaw c'est que man euh, loolu xam nga Ndiaye fiiraange Ndiaye fiiraange mën na lu ne ah man tamit mënu ma ci avancé waaye. Eh, waaw Ndiaye. waaw nee nañ ma. ci mhm. ay waxu loolu nag wóoru nee nañ ma lii mu def nii Brésil def na ko Sénégal. Mhm. def na ko Brésil bii mooy troisième fois ma nag ay wax yuñ ma ay information yu ma jot la ñu koy vérifier. te baan bi njëkk wax. waaw nee yi muy utiliser ku koy utiliser mën nga di aaloog di tàngaloog yooyu. xaw ma nag yàlla utiliser Ndiaye yónnee naa la ay photo ah, eh, góor yu eh, gis nga ab sàmm bu bëggee rey xajam da koy jiñ ràmm. waa gis nga photo yi day day day tux day naan ak day utiliser yooyu yëpp gis nga. Eh, benn version la baan d'accord naa nee naa la. man waa ji fa ma njëkk a fa ma ko njëkk fa ma njëkk fa ma njëkk àndadee ak moom mooy fi mu jëlee bakkana doomu aadama waaw ak lu mu la mën di def waaw foo mën di yegg waaw waroo egg ci di jël bakkana doomu aadama d'accord xam nga xam xam nga lu yàq réew mi àdduna mm-hmm. mooy dañuy xool ki fayu fàtte ki mm-hmm. tooñ waa ji waaw def na d'accord naa mm-hmm. mais nee naa la buñ ko toppee ba ca ca cappaandaw le Ndiaye def nañu ko li mu defaf moo fay. ñu ko def malheureusement nag. Ndiaye ma comme oh. man ñun ñu nekk foofu Futurs Médias ci RFM foofu noonu. Mhm. su témoin jotee. Mhm. yéen ñoon yéen a ma mën a témoin man maa mën a témoin aj abaa man maa mën témoin Ndiaye ci yow baabara yi ñu doon wax. Mhm. ñooy ñi dëkk ak ñoom di añandoog ñoom di fanaandoog ñoom di yeewandoog ñoom lii lañ wax. nee nañ musuñoo gis ki ñu rey. di séq dara lu wàllu jëm wàllum mbëggeel jabaru waa ji ñoom ñoo wax loolu kii fanaanoo ki ñu rey loolu la wax ka nga xam ne mooy sénégalais ba jiite brésilien wi ba foofu di seex tudd Cheikh Ndiaye di jàmbaar ci affaire bi lool loolu la wax taamee ñu ko dul may pour ñu teg ko. Mhm. mais ki nga xam ne moom la doon menacé naan foo see ne koo rey. Mhm. donc yorul woon sax numéro téléphone am da koo contacté ci Facebook bi. Mhm. ne ko jox ma sa numéro dama laa soxla. mun ko ay sept heures du matin yow loo xew le mu jox ko numéro am ki la ko yónnee yooyu menacé ko ki la waa ji tiit. léegi wa léegi baan waa ji dañ koo jàpp. non waa jàpp jàppaguñ ko loola ma jaaxal ci police bu Brésil su doon police Sénégal kon heure bi kenn waxatu ko. mais pour léegi nag waa jooju noonu. waaw xaw ma ndax dinañ ko jàppam duñ ko jàpp mais bis boo amee mm-hmm. version. Mm-hmm. di nga considéré waat sa position bi. non non man awma position. awma ci benn position. fee yiñ ma jox moom laay jox askan wi. mais baan. waaw ñi ñu amagum nii. waaw nañu xool kii tey euh, ki nga xam ni moo war a wax. ki ki toppoon ci rey bi. waaw moom déglu ko. lu mu wax. problème bi moom dafa dem ba ëpp ñu loxo ñun ñuy nekk fii parce que fu mu toll ni ku nekk yaa ngi jël version bu la neex di ko commentaire wala di ko waxee bañ na ba youtube sax bëggatuma fa dugg di seetaan wala facebook tey ji ak wax ju ñaaw ju ñu jël di ko teg si ki nga xamante ne tey génn na àdduna faat nañ ko génn na àdduna wax ju ñaaw ju ñu jël di ko teg si kawam waaw met nañ trop trop trop trop trop loolu lépp la moo ko waral mooy réseaux sociaux yi ak gaa yi nga xamante xamul nu mu demee ku nekk jug di wax asan Diouf jëwrin billaahi wallaahi taalaahi Brésil laa ko xamee. mais moo gën a ragal si àdduna. du tooñ maa ngi moom buñ jàppantee xuloo. Euh, ban. waaw du boobu. waaw moo tax kay ma ne ko moo tax mais léegi. dernier élément bi tegoon na ko sànq pourtant mooy dernier élément bi. ki nga xam ne moom lañ moo toppoon ci rayit yi. ay ca kon. waaw affaire moom bu ma ko déggee moom métti na trop ndax Bilal moom Facebook la ma woo quoi Facebook la ma envoyé message ne ma envoyé ma sa numéro ma envoyé ko sama numéro après mu commencé di wax ojo yooyu quoi te man wax dëgg yàlla Bilal moom man ak moom jàmm rek la ñu seq quoi jàmm la ñu seq amuñu benn xaar ma yàlla man ak moom waaw aw ma benn xaar ma yàlla man ak moom bi ma koy xam moom moom São Paulo la ma fekk quoi mook jabaram man maa fi njëkk quoi mais São Paulo la ma fekk mook jabaram foofu laa ko xamee ñu seq jàmm xam nga jabaram di liggéeyee si mata ñu seq jàmm loolu la ñu seq man ak moom jàmm jooju daal la ñu seq waaw. foto yooyu moom muy wax moom na ko génnee bu dee photo yooyu muy wax kay moom moom nangootul correcté nangootul uh, yor whatsapp nee na génne photo yi preuve kay moom boo ko yoree dangay ngay génnee photo yi da ngay génnee photo mais xam nga wax foto ay photo wax loo xam ne kenn xamul xam nga ba pare noppi yow waxatoo dara. xam nga loolu tamit euh, xam nga doy na waar tamit même bu dee moom ay ay dafa yor photo jàmbur xam nga ay foto yoo xam ne moom nee na yor na ay photo xam nga sama photo mais na génne photo yi na ko génne na ñëw connecté wala mu ñëw mu mu génne ko dugal ko si internet bi nit ñi gis ko ñu dara nag jàmm nag la ñu seq nag jàmm la seq muy sama mbokk sénégalais xam nga ñu seq jàmm bu ñu ma ko rombee yoo nuyu ko ñu seq jàmm jabaram ñu seq jàmm xam nga loolu rek la laa seq ak Bilal moom mais amul leneen loo xam ne seq naa ko ak Bilal wala mu am leneen loo xam ne man bus naa koo wax ak jabaram loo xam ne yëfu caaxaan la wala leneen jàmm daal la ñu seq lañu la ñu seq jàmm waaw jàmm daal laa seq ak Bilal jàmm laa seq ak euh, jabaram jeex na amul leneen nag waaw loo xam ne man mus naa ko sax sama xel sax mus naa dem si si jabaram ba muy wax wax yooyu wax yu ñaaw yooyu kaa waaw wax dëgg yàlla moom bu dee yàlla moom dëgg rek la wax moom dëgg rek la bëgg moom Assane moom wax dëgg yàlla Bilal da koo tooñ quoi wallaahi da koo tooñ mais ragal naa ni nag nit ñi nag ñoo leen boole moom nit ñi moom ñoo leen ñoo leen leen boole mais man mosuma xam ne sax Assane xaritu Bilal la ak yéen yéen yéen yu bëri sax mosuma ko xam si mosuma ko xam ndax tamit maay dégg ay yoo xam ne ñuy wax naan man ak Assane ay xarit lañu dañ doon toog ak femme beeg nangam loolu moom c'est faux man ak Assane Assane moom man moom bokkuñ sax li man li may def ak Assane li muy liggéey sax bokkul xam nga nuyu daal moo seqee Assane dinaa ko nuyu loolu laa seqoon ak Assane ñu seq jàmm waaw. Hmm? Hmm? mi ngi noonu. yaa ngi kooku daal moo toppoon moom la Assane doon menacé naa ko maa ngi lay rey ah, moo waroon a topp ci liste bi. waaw moo waroon a topp ci liste bi waaw mi ngi noonu. Hmm? Ah, euh, waaw mi noonu daal ah Bilal Bilal Bilal moom la doon menacé. Assane moom euh, euh, kan kan moo ci faatu Bilal. Assane Assane moo faatu Bilal moo Bilal moom la mooy faate. Assane Diouf la tudd Assane Diouf. Assane <laughs> en tout cas daal. <laughs> <laughs> en tout cas daal way gaal gi ci tefes. en tout cas li ma ci xam mooy Assane Diouf la tudd. ma euh, euh, ma ni man li nga xam moom laa xam te mu leer ma ci. ci Diouf Assane ji baa ñu wax Ndioufa rek. Euh, man xam nga la laa ci xam la tudd. waaw d' accord waaw d' accord bi bi lay wax nga dëgg Baan. Assane Diouf xam nga est ce xam nga man la laa xam te mu leer ma. mooy daara ci àdduna du jar di jël bakkanu nit Ah, nit booy sëy moom dem ba confiance amatul. Mhm. wala nit ngay sëy moom dem ba euh, la nga doon xaar ci moom fekkoo ko fa wala euh, mu lay ji ngay am ay xel ñaar ak yooyu ci moom da nga koy bàyyi mu dem baan nga wuti keneen. dëgg la li nga wax dëgg la mais gi nga abaa tamit. Hmm? jigéen ñi xale yi jigéen hmm? ñu bari dañuy déglu xalaat li ma leen di wax. nañuy tànn jëkkër. jigéen ñi góor ñi nañuy tànn jabar. dëgg la c'est très important. fekk tox ko du yàmbaa bu tox ba réer nga dugg ci moom mu lay takk yu mel nii lay jur. ma tegal la ci beneen. téeméeri góor yu jële fii seen jabar yóbbu bitim réew quatre-vingts yëpp ñàkk nañ. noonu la ñu mujjee. ñàkk nag daa bari na mën mhm. ngeen a dem foofu ngeen tàggoo. Mhm. Mhm. mën ngeen a dem foofu mu turu jëkkër nekk fa ba pare muy lijjanti ay dossier mais c'est vrai tey jii tey jii il faut ñu koy moytu quand même. cest boo nekkee fii. dafa neexut a dégg mooy mais mooy lii dëgg. voilà euh, autant ni nga waxee góor jigéen ñi nañuy tànn seen jëkkër. mais hmm. aussi tamit góor ñi nañuy tànn seen jabar. Hmm. seen jabar. am nga am na ñoo xamante ne ji leer na leen ne tey bu ñu demee bitim réew am fa teraanga yóbbu seen jabar du def dara lu dul jàppale leen teraanga ji gën a yokk. Hmm, mais euh, jigéen a ngi lang ci moodu moodu. lenn rek mooy pexe mooy na ko yóbbu mu lijjanti boppam. dëgg la mooy jur yii rek. c'est parce xam nga lu parce que jigéen boo ko xoolee am loo koy jiiñ diggam ak genn góor. ça veut dire que doxinam des na. waaw waa ji Bilal def na def na def na lu rëy. loo xamante ne ji moom baat nuy tukki du ci na gis nga Ndiaye mais nag nañu lijjanti luñ ko def. njaay mhm. soo dee góor xam ne wóor na la ne yow mii lii moo tax ndaw si nopp la waaye su du woon lii ndaw si du la nopp. Mhm. ah soo ko takkee da ngeen ami problème beneen bi mooy tey jii dangeen ngeen xale bu jigéen bu am 18 ans fan benn waay fan benn tuxatu yàmba wala benn agresseur fee fan ko rek ñu tere ko ko ba mu topp ci. ba famille ba bàyyi koog moom mu takk ko. baan fi ñu booy daaneel rek booy daaneel rek euh, ñun ñu dem à la présidence. léeg-léeg suñu demee ba jëmmi jamono nag. nga xale bu jigéen bi màgg yeewu léegi. nii rek xam ni dafa juumoon day tax muy tëj ci bëtam ci ñeneen leneen lu baax lu sell. boo daanelee rek voilà waaye nekk biir nekk. baan boo daanelee baan boo daanelee rek. ñu dem à la na ñëpp am jàmm rek.